taarix la ñuy teg taarix boo xamante ni daf ñuy fàttali Sénégal na mu bindoo 1960 ak léegi ay président yu bëri dal di fay jaar Senghor Abdou Diouf ba ci Macky Sall jaaree ci Abdoulaye Wade mu nekk nag ay njiit yoo xamante ni ku nekk am na loo fi def ci tolluwaay jamono di dox saa su ne nag réew mi di am coppateku coppar ñi boo xamante ni daanaka léeg-léeg li ci ëpp mooy métti Sénégal toll ci jamono joo xamante ni ñëpp jàppoon nañ ne waroon na romb fii ci wàllu méttit ci wàllum jafe-jafe coono àdduna dundini doomu aadama yi mu mel ni loolee nag dafee am kër goo xamante ni si pour ñu dàq ko fi jafe na te monte ñu ko yaakaaree ci ñi nga xamante ni si ñoom la ñuy tabb ñu doon ay de la république France bi Abdoulaye Wade jotee nguur gi mu tàmbalee def ay jéego jéego yoo xamante ni si ñu bëri jàppoon nañ ne ba nëgë ni bu doon wéy na konoon dëkk bi dina gën a ñoŋ waaye du loole ba mu fa wutoo président Macky Sall ñëw ñu yaakaar ne bonne gouvernance yorin bu mucc ayib dina am waaye mu mel ni nag mbir moomee dafa sooxe dëkk bi tàmbalee sonn di métti certes nag dëgg la tabax ay pont defar ay tali loolu yëpp nag lu mucc ayib la waaye ne ca war a jëfandikoo ñooñu bu fekkante ni ni ñoom seen dund ñoŋul jafe-jafe dafay bëri te daanaka booy xool Sénégal foofu la toll naan saako bu deful dara du taxaw moo tax tey jii sénégalais yu bëri seenu taxawaay jafe na jafe na ndax dëkk bi metti na jafe na ndax dund bi metti na jafe na ndax dëkk bi cher na ci jamono ji nga xamante ni ci ci la koom-koom bi gën a bëree ci la développement bi ñu gën koo séntu foofee la mbir mi gën a tàggate mbi booy xool bu ñuy wax ci côté njàng ak njàngale mbir mi sooxe na ay étudiants yu jàng ba noppi daanaka booy xool xëy te na leen ficc wala ñu ngi jàng waaye seenu ëllëg xamuñu lan la amuñu benn qualification soppiwul ndax itam ci junne étudiants yi war a def concours ba mun a am seen lijaasa ñaar wala ñett te doo xam sax nañ leen koy sélectionné mu di jafe-jafe yoo xamante ni si lan na lool ñu ne déetawaay feebar faju jafe yenn ci diwaan yu bëri ci kooki boo demee bu ñu dem l'hôpital ay sareet ay bërëb yoo xamante ni si daanaka jafe na moom la ñu yóbbu mu nekk jafe-jafe yoo xamante ni si dañ koy wax noppeeguñu wàllum dund gi dund gi cher na boo jote si yombul yombul ci boobee jamono nag ñi ñuy jiite ñu si bëri nag ngànnaayu ay milliards milliards yooyu nag tax bu ñu bëri bëri yi ku nekk di fëgg sa dënn di laaj réew mi ngir ñu jox la ko waaye ngelawaay dañoo war a joxe jox ñoo xamante ni gore nañu xam nañ yittee askan wi xam nañ coono askan wi ñu mun koo saafara ndax itam fi réew mi toll foofee rekk lañ war a mun a taxaw ba joyanti ko waaye itam lii ñuy dund bu dàkkul coono du gaaw a jeex kon ngelawaay tey jii encore histoire taarix da koy bindaat ci réewum Sénégal ñu war a tabaat président de la république ñi koy laaj ne kon ñaar fukk ci njëlbeen gi am ku ca génnee bokkul am ñaar ñoo xamante ni si nee nañu ñoom rocc nañ seen candidature fukk ak juróom-ñaar war a dem fi ñu toll laaj boppu réew mi ñoom ñëpp nag ñu sol seen dàll dugg ci réew mi diggee teg seeni programme ne ngelawaay bu ñu falee loolu lañ bëgg a dérouler waay waay damay waxati rek nag bu ñu falu fàtte askan wi coono ji lu ne xew na fi lu ne dégg nañ ko fi ay bakkan yu rot ndaw ñi dee nañu xeex nañu son nañu ba booy lim ñi fi dee ci ay ndaw bari nañu loolee lépp nag ngir bëggoon a xeexal seenub réew ndax jàpp nañ ne coono gi bari na Sénégal buñ koy wax population bi naanam askan wi li ci ëpp ay gone lañu te gone yee ñoo yaakaaru kër yi ñoo yaakaaru seeni ku waajur te li ñu yaakaar mooy toog seen réew liggéey liggéey boobee te leen ficc nag ba tax ñuy def li nga xamante ni sax moo di lu neexul kenn mbëkk maa ngi fi li ci rot ci ay bakkan bari na ñu ne déetawaay ñiy jaare Nicaragua li ci ñàkk ci ñàkk koom-koom bëri na loolu lépp nag li ko waral mooy mauvaise gouvernance yorin boo xamante ni mucc ayib wala ku ma am ndey ku ma amul ndey alal yi ñu féetale ko benn boor xoolal li xew si dëkk bi ak jafe-jafe bi ni ñuy dund ñi ñàkk seenu bakkan accident yi bëri nañ coono ji métti na te loolu yëpp nag mënoon naa ñàkk ci réew moo xamante ni mu ngi toll ni Sénégal waroon a neex bu fekkonte ne amoon nañ une très bonne politique de gouvernance ndax itam ci wàllu mbéy mi mënoon nañ saa sukkandiku ba développer réew mi defuñu ko wéru gu yaram ñu war koo gën a mën a ñoŋal muy sooxe njàng mi ñu war koo gën a gën a jagal baaxul lépp loo laat rek fi mu toll day métti dara amul dara xëyul ñëpp nag sonn mu doon mbir moo xamante ne fi mu toll nag dañoo war a teg suñu tànk tourner cette page là page boobu nga xamante ne ñuul na kukk ndax ay rature ak i jafe-jafe ñu ëlbati nag indi page bu bees peq nag ba yor réew mi ci yorin boo xamante ni si dina mucc ayib ndax yaakaar naa ne loolee rek lañu bëgg bëgg fintoon yi ndax nit ñi sonn nañu nit ñu tàyyi nañu nit ñi damm nañu nit ñi lottu nañu ndax lii xew ci réew mi ci jamono 2012 ak léegi ku ko déggul yi tamit gis nga ko kon nag ngelawaay loolee dafa war a jeex kon tey jii ñu war a sampaat beneen ko mbër ci bopp réew mi kan la war a doon ci ñoom ñooñee en tout cas bu ñëwee na jël priorité def ko muy farataay askan wi lu mooy loolu itam Sénégal dina woy di gën a metti Sénégal dina woy di gën a dugg si guuta te guuta googu nag nga la waaye cee war a génn gaal gi kat dugg nañ ci ci ñëpp dugg nañ ci ca capitaine bi mooy le président de la république war na gis ñu si ginnaaw ndax ñu ngi sonn xiif mar te loolee yëpp nag fi mu toll nii waroon naa mën a ñàkk ndax lii génnee koom-koom ci réew mi jëmaat ci ñoom wax dëgg yàlla mënoon nañ koo séddoo ba ñëpp gis ci ba tey ji ku taxaw am xëy takk jabar mu tëla bëgg a yóbbul sa yaay màkka mu tëla bëgg a dundal sa njaboot mu tëla ci réew moo xamante ni nañ réew mu koom-koom la surtout réew moo xamante ni lu am solo feeñ na fi mu di pétrole kon ngelawaay nañu xoolaat réew mi te bàyyi xel bu baax yittee askan wi